Le may moi mooy li xew fii alors que suñu collègue bi nga xam ne docteur Massamba Gueye Fall didef garde fini si service urgence mu am malade yu sonn yu loolu suñu collègue bi commandant de police bi dirigé woon peloton bi ne ko day jël bilan malade bu sonn parce que dañoo soxla won ci saa si résultat yi commandant bi gis nako ak tenuyoom ak stéthoscope am jox nako autorisation pour mu traverser mais dafa am ay éléments incontrôlés yi nga xamné ñoy jël ay taser électriser suñu collègue te loolu moom damay wax ne loolu mënuñu ko nangu tey mënuñu ko nangu ëllëg ñun si syndicat bi dañoo décréter ñaari fan yi nga xam ne dañuy banque suñu loxo te lépp li nga xam ne moo mooy wareef syndicat bi ak ordre des médecins dañ si taxaw ak ñi nga xam ne ñoo ñuy jiite si niveau national bi li nga xam ne tamit mooy euh, suñu revendication yi sécurité bi di nga war a assurer mu nekk Saint-Louis fii mu nekk bërëb bi nga xam ne dañuy fay faj ay malade kuy munti liggéey si biir bërëb fajukaay war na mun a liggéey si xel bu dal ndaxte dafa soxla saay bu tiimee malade yi nga xam ne

duñu ko nangu tay duñ ko nangu ëllëg na leer ne li ni ne si taxaw quelles que soient les conséquences nous avons amul satisfaction nañu continuer téye li nga une extension bi niveau régional ak national yëpp déclenché nañu ko li ñuy xeex pour bépp bérébu liggéeykaay yoo xam ne dañ fay faj ay sénégalais personnel bio il faut que ñu sàmm sécurité am si loolu lañuy taxaw.